tey li nga xamante ne moo ñu fi dajale gannaaw retrouvailles yi nga xamante ne moom moo am si diggante président Macky ak président Cess Idrissa Seck euh, muy retrouvailles yoo xamante ni ñun ñëpp muy ndaw parti bi muy sénégalais yi ñun ñëpp dañ koy saluer di ko rafetlu di ñaan aussi ànd bi sax suñu borom def si jàmm parce que lii mooy jàmm Sénégal lii dafa wane ni démocratie bi nga xamante ni moom la président Macky di prôné wu di am lu ñuy ñaawlu. si suñu benn ancien frère duñu ñu suñu frère parce que Mame Mbaye Niang ku ko xam-xam ne newatul sax si dispositif parti bi parce que gis nañu euh, audience nuitées yi nga xamante ne moom lay def ak Ousmane Sonko euh, kon ko considéré wuñ ko nit ku bokk si parti bi beneen bi dañuy lancé appel président euh, sur le cas Mame Mbaye Niang que mu yam mu réglé et puis mu jëlee ko fi nga xamante ni moom mooy post chef de cabinet parce que du nit koo xamante ni jar naa wóolu ba koy dugal biir palais parce que kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni moom lay teg si ginnaaw Mahmoud Saleh loolu jubluwu si visé Mahmoud Saleh rek mais retrouvaille entre Idrissa ak euh, président moom moo ko neexul Mahmoud nag la bëgg a jël def ko xeexukaayam te Mahmoud Saleh ku ko xam-xam ni nit ku loyal la nit ku fidèle la envers le président nit ku yàgg ak président la et puis nit ku yaatalal président la mi mi ngi jàppale président si bépp boor kon xale bu ndaw bu mel ni euh, Mame Mbaye nga xamante ni léegi yéen journalistes yi jox naa leen euh, ay preuve yu wane ni du du nit koo xamante ni nit ku jub la parce que am am bu gaawee ni ab sàcc rek moo ko mën a am kon Mahmoud euh, Mame Mbaye Niang du nit ku jub kon jarul président di ko uuf tey jii ñun li ñu doon xaar si Mame Mbaye su génnee bay wax mu wax si 29 milliards yi nga xamante ni moom moo nekk Prodac mu wax nan la mën a def ba am ay berger Maroc nan la mën a def ba am ay terre biir Almadi nan la mën a def ba tijji ay restaurant Ngor kon yooyu mu luubal nga xamante ni jubluwu si lu làqtu si ginnaaw président ñun dañuy wax président na fa jëlee foofu te mu bàyyi Cour des comptes wala CREI yi def liggéeyam si kaw euh, Mame Mbaye Niang beneen bi si des mooy euh, li nga xamante ni secret yi daw si biir parti bi te mu koy waxtaan ak euh, Ousmane Sonko loolu conseil discipline parti bi nañ ko convoqué daar daar te ñu jëlee ko ci biir parti bi parce que loolu du sécuriser euh, fi nga xamante ni fa lañ jëm benn bis des Mambay ne mosta liggéey ak Idriss Seck or que day faux lu du dëgg Mambay si wax wax julul dëgg si la yàgg sax ku ne xam ne ni Idrissa bi mu nekkee prison ba Diattara amoon na mouvement bu ñuy wax fidèle Mambay moo doon téye saagu Yankoba la tous les déclarations yi nga xamante ne moom la Yankoba def soo xoolee dans YouTube Mame Mbaye mi ngi taxaw ci wetam kon tey ji kersa la ci moom euh, mu gis ba Yankoba la président nommé ko ministre mu nekk di doxal ci li nga xamante ne moom la ko président sant kon Mame Mbaye góomu xolam du daf kay régler ci ku ministre d'État ma euh, Mahmoud Saleh kon ñu ngi lancé appel président de la République à ce que mu yamale Mame te mu jëlee ko foofu parce que du nit ku jub lépp luy xew ci parti bi mi ngi koy waxtaan ak Sonko nekkatul suñu biir ci Ousmane sonk la bokk beneen bis des yi nga xamante ni moom la luubal par rapport ak terrain yi nga xamante ni moom lañu jaay viral na bàyyi yoon def ci liggéeyam ñu woo ko fi mbaxane ne doonee benn lijjanti ko parce que alalu askan wi la tey jii mambay li ñu doon xaar ci moom mooy mu dem wax li mu am fi mu ko jëlee ñun nag ñi ngi koy xaar pied parce que doot ñu parti bii di alliance pour la république benn gune gu ndaw di Mambay Niang dugg si di jaxase nit ñi di wax nit ñi ay kàddu yoo xamante ni du dëgg si ay responsable yoo xamante ni new ñu fi lu dul dimbali président new ñu fi lu dul doxal président tànk jàmm new ñu fi lu dul yaatalal président en l'occurrence ministre d'État Mahmoud Saleh loolu lañ amoon pour lu ñuy wax alerter si président de la république di wax ni Mambay ñun ñu ngi sur le terrain ak moom su jaree joxe bakkan sax dinañ ko jox suñu bakkan mais duñu bàyyi mu naxasal parti bi duñu bàyyi aussi de les dignitaires du parti muy jël ay cadres yu ñaaw di ko teg seeni kaw ñun jël nañu engagement ànd ak le ministre d'État Mahmoud Saleh ànd ak moom kanam ak ginnaaw ànd ak moom wet ànd ak moom kaw suuf ngir accompagner le président de la république Macky Sall. retrouvailles Idy ak président de la république euh, retrouvailles la yoo xamante ni askan wi ñoo siy jariñu te askan wi ñooy ñooy applaudir askan wi euh, ñoo ñoo ñoo si ànd tey jii ku gis président ak ni nga xamante ni noonu la tàllale loxo président Idrissa président Idrissa nangu ko nga xam ne nii askan wi kese leen ñor kon du ñu bàyyi ay gune yu ndaw di jéem a yàq loolu te Mambay si lool la ne. je m'appelle euh, Ousseynou Diouf je suis responsable politique de l'Alliance pour la République ici à Thiès et je profite de cette occasion pour remercier mon jeune frère Gilbert qui m'a invité à ce point de presse. pour faire en quelque sorte une situation de l'environnement le, politique dans lequel nous évoluons ici à Thiès, mais surtout euh, magnifier l'arrivée du président Idrissa Seck dans l'attelage gouvernemental. Vous savez que depuis pas mal de temps, avec son arrivée, il y a eu des remous dans notre parti, mais même dans l'environnement politique. Mais nous, en tant que Thiessois, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mais l'arrivée d'une telle pointure politique au niveau à côté du président de la République, euh, son Excellence M. Macky Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici qu à Thiès, les deux formations politiques qui étaient tout le temps en balotage lors des élections, c'est le parti Réumi et la coalition Benoît Bokyakar. Nous, en tant que Thiessois, lorsque nous avons quelqu'un comme Idrissa Seck à côté de M. le Président de la République, je pense bien que maintenant nous avons une oreille attentive auprès du monsieur, de, de, de monsieur Macky Sall pour pouvoir gérer les préoccupations des Thiessois. Je dis bien des Thiessois parce que si je prends exemple de la question de la relance des chemins d'affaires, depuis pas mal de temps, nous sommes en train de battre pieds et terre pour que cette relance puisse être effective à l'endroit des sois Parce que cette relance de, du chemin de fer est une, est préoccupation des Thiessois et a un impact économique et social sur le vécu des Thiessois. Donc quelqu'un comme sa Seck, à côté de, de, de son excellence M. Maxal, je pense que une personne euh, bien, bien représentée, c'est une personne bien désignée pour porter le plaidoyer des Tchessois. Donc vraiment, nous, en tant que cadre de la paix, mais aussi avec les jeunes qui sont ici présents, nous saluons vivement cette arrivée et nous lui tendons un bras ouvert et nous lui disons que nous sommes prêts à collaborer dans tous les sens puisque telle est la volonté de Par rapport au dernier remous qu'on a constaté dans notre parti, vraiment, nous, nous, nous tirons sur la sonne d'alarme parce qu'il est grand temps que nous, cadres de la paire, nous puissions vraiment faire la part des choses. Nous ne pouvons pas du tout accepter ou bien voir certaines pratiques qui se faisaient et qui continuent jusqu'à présent à être observées dans l'environnement politique. C'est quoi en foi faisant Nous ne pouvons pas remarquer quelqu'un qui a été désigné par son excellence le président de la République en tant qu'homme de confiance pour lui mettre à ses côtés et qu'en retour, un autre cadre de la paix puisse porter des invectives sur cette personne. Moi, je dis que c'est irrespectueux d'abord à l'endroit du chef, qui est le président de la République, mais aussi ça sème la zizanie, le, le manque de respect et l'anarchie totale dans notre parti. Et vraiment, j'invite nos camarades à se retenir à adopter une conduite qui va faire de nous des futurs leaders dont les Sénégalais auront bon espoir. En tout cas, nous, nous, vraiment, nous, nous, nous, marquons sur ce point euh, une amertume, vraiment, mais, mais aussi, euh, nous disons à M. Mambeignan vraiment de savoir raison garder pour une prochaine fois et vraiment de retenir ses propos. Quand on a mal, quand mal dans le cœur, avant de parler, il faut savoir vraiment quoi faire. Parce que c'est des genres de situations qui mettent à mal à l'aise le président de la République, mais aussi qui, qui n'honorent pas notre parti qui est actuellement en train de gérer ce pays. Nous sommes dans un parti bien organisé, avec des instances bien définies. Ce qu'il a dit tout haut, il n'a pas manqué de cadre à le dire. Si vous me permettez, qu'il faut qu'il y ait de Même si le président avait fait une erreur dans ses choix, ce n'est pas à Mambéignan de lui dire ça n'importe où et n'importe comment. On est dans un parti bien organisé, respect doit être donné au chef et je pense que le président doit prendre des sanctions par rapport à cela pour que pareille chose ne puisse pas être répétée. parce que sinon aujourd'hui c'est Mame Mbaye demain ce sera une autre personne qui va attaquer les décisions de notre euh, leader qui est le président et la non l'APR est bel et bien structuré structuré c'est ce qu'on a l'habitude de dire mais l'APR est structuré avec des instances qui, qui, qui des instances qui marchent à fond et vraiment de manière réfléchie réfléchie mais aussi de manière euh, consciente et qui adopte vraiment le PSE qui, qui répond aux normes que les Sénégalais aimeraient voir comme parti politique qui dirige un pays. Et je pense que par rapport même au respect des Sénégalais, je pense que c'est inélégant vraiment de, de, se, de se chamailler sur la place publique. Comme on le dit en Wolof, le linge sale se lave en famille. Il y a certaines choses, même pour le dire, je pense qu'il faudrait prendre des conseils et puis chercher la personne idéale pour porter ce genre de conseils, bien ce genre de remarques à son excellence, mais éviter de le de déballer sur la place publique. En tout cas, nous, nous, nous, nous contestons vivement son, son, attitude et nous demandons à ce que vraiment que Paris ne se reproduise plus dans notre parti. Je vous remercie.